yéen kaay yi. ci yéen kaay yi. El Hadji Ousseynou Ndiaye. tal leen jàmm ci xibaar yéen kay ak ñi nga xam ne rek kay ku ci nekk yaa ngi def li nga xam ne rek teg say stratégie maanaam daal jàmmaarloo ñi nga xam ne rek seen diggante jafe-jafe yi nga xam ne rek am na fexe yi nga xam ne rek moom la teg bokk na maanaam daal fexe ba njiitu réew mi Macky Sall dégg leen waaye tamit du am benn jafe-jafe goo xam ne am na ci yéen kaay gi duñu xamal ne loolee kay lañuy ragal ragal ndax kàddu yi nga xam ne daal jot nañu ko yëkkati li ñuy ragal moo di njiitu réew mi ñii nga xam ne rek ñoo nekkee ci réew mi si tey nag di lool ci coronavirus bi yéen kaay quotidien duñu xamal ne njiité réew mi Macky Sall foom kay dafa wone li nga xam ne rek moo di ak tëleem réew mi kay nee nañu nag xamal ne ñoom kay njiitu réew mi dafa ànd ak ay caméra maanaam dagg léppam wut avion dem ngir sekk ji li nga xam ne rek moo di loole waaye nag njiiteeri Macky doomam yi nga xam ne daal ñoo nekkee ci réewum Siin réew leen di seetaan yéen i kaay gi duñu xamal ne moo xam ne nga xam ne rek noonu lay doxale ci askan wi ak seen i jafe-jafe yi nga xam ne ku ci amul pexe fekk jamono jooje yéen i kaay gi duñu daal askan wi ñu ngi leen di song laa wax di leen faat di yóbbu seen alal

tàmbalee bu yàgg ba léegi jamono ji nag feeñ na fi nga xam ne nag moo di dëkk bu sell bi Touba yéene kaay ñu xamale gannaaw nag ba ñu ko gisee nga xam ne rek moo di Awa Ndiaye kaay bi di source a di ñu xamale moom kay nee na dellu fi nga xam ne rek moo di ca jëkk

bëri yoo xam ne rek da leen doon def naka su dul noonu. El Hadji Ousseynou Ndiaye.